su ngeen dee wax ak Muhammad laa tajaalu duaa rasuli baynakum ka duaay baadakum baadan su ngeen demee bay woo yonent bi ànd leen ak yar su ngeen koy woy ànd leen ak yar moo tax temps yële gis naa ci budd bi ñuy jaay def ndax ma metti ma ne ñi xamuñu ne yonent baa ngi fi yonent bi fu mu toog na ñooñ a dal di di di kii lan la fal nataadab maa xadrati وهو موجود في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت خصوصا خصوصا في هذه الحضرة التي أسسها محبه وحبيبه وعبده الشيخ الحاج مالي قول قصة كي بوبم يوي دفكو يمت يوي خيو كي مينو كامو يدفني أبوردي دفكو يمت تي ديك نغن بطاي ليلي قول قي مصنا وخنا جسنا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه كي نلو منكو يا عبد العزيز لأن منتك ديكو دقل منكو قل للناس فليتأدبوا معي لأني لست على الحالة التي كنت عليها في الدنيا يا عبد العزيز لأن منتك دي دقل بابا منكو نيتي نجم جوخ يارك تك انت ورمانو لحكت نما نكو نجم كي أدنا بما نكي فيكي برزخ نكتي منكو نجم نجم فإنني لست على الحالة التي كنت عليها في الدنيا وده في يكون كناك رك يعيشت نوي دوجي حد نوي زيارة نوي جفي نوي وخي صلى الله عليه وسلم دفي تاو بالله الذي لا إله إلا والقرآن العظيم لكن نفله يوزفه يا منقور mel na dama gis yonent bi fii ñoom maam Malick toog mu ngi tëdd loxo bi soonu ci loxo bi jël benn tànkam teg ci beneen tànk bi fi ma toog ci fale maa ngi gis ko di bopp bopp bi deru bopp bi du ñu leer nañ bëñ yu rafet bëñ yu rafet xaala boo xam ne da ngay waru na waar nag dee leen ko mos fale dee leen foto koyam mi fi fi ki sol lu verte bi taxaw dee leen xëccee place bi da koy gis insha allah mu di loo xam ne nag mayuñu ko suñu bopp liggéey lu ñu yàlla lu ñu may loolu wallahi al ñoo gën a kàccoor ñëpp ñoo gën a dellu ginnaaw ñëpp man xam naa sama bopp yéen ma gën waaye rek bokk nañu rek sopp yonent bi ñun ñëpp bokk nañu itam ci njabootu Cheikhul Hadj Malick ñun ñëpp yal nañu yàlla doole tas ci bopp ci ci barkeem yàlla dogal